rose association And Djubo en partenariat avec le Centre Conseil pour l'adolescence de Refusque, en collaboration avec l'association des Badjanogor et le réseau de structures de protection de l'enfant Nek Fitignag, Nyolendi Yegel, consultation médicale gratuite Amal le 31 octobre 2020 à partir de 9h, Foule poste de santé Bouniag, à école élémentaire. luñ fi mënti def rek pour dëkk bi la te dañoo bëgg dëkk bi yépp génn bii yoon nag octobre rose la octobre rose boo ko déggee mooy dépistage col de l'utérus pour jigéen ñi ñu xoolal leen seeni butitu njurukaay ndax amul feebaru cancer bi déet palpeel leen seeni ween ba xam ndax amu ko wala déet samedi bii di ñëw ci 9h ci suba consultation yi ñuy maye dañ koy maye ak yeneen di consultation muy consultation générale massage dina am kinésie ak euh, pédiatrie pour pour tànk yi ak don de sang don de sang nag boo leen ko déggee mooy dindi ñu dindi leen tuuti rek ci seeni seen pour ngeen sauver ay vie sauver ay vie nag boo ko déggee yaa ngi li doomu aadama boo xam ni dafa naroon a ñàkk ci deretam nga ñëw may ka te boo ko mayee moom yàlla rek moo la ciy bindal yiw bi nag loolu moom dañ koy def te bu samedi incha allahu consultation yooyu ak octobre rose bi nga xam ni dépistage col de pour xoolal jigéen ñi seeni butitu njurukaay ndax amul feebaru cancer bi parce que loolu dafa bari lool kon jigéen ñi ñoo war a gën a mën a génn ak mag ñi nga xam ni seeni yaram day mette neexul pour massage bi ak xale yi tout tànk yi nga xam ni dañuy feebar rek dina am docteur yoo xam ni ñoo leen di say loolu lañ fi bëgg indi bu samedi 9h ci suba dañ koy tàmbali fii ci poste de santé bi ak ci biir école dañ ko bëgg a ah mbokki ñàgg mbokki communauté Awon Pël jàpp leen woote baa ngi noonu muy consultation médicale gratuite bu ñuy amal fële ca post de santé bu ñàgg ak école élémentaire ba ñu ne consultation bi nag nii lay tëddee képp koo xamante ni xale nga jàppal ni ay docteur yoo xamante ni yu xarañ dina ñuy fa ñëw ngir def massage ngir xale yi tout tànk yi waaye itam am na li nga xamante mooy mayam deret ñu ne maye deret boobu nag dafa manqué fii ci suñum réew moo waral association bi jóg taxaw ànd ko ak ñi mu war a àndal ngir askan wi maye deret ñu ne boobu maye deret nag képp koo xamante ni yaa ngi ciy ñëw ñu ne bul ndékki boo ñëwee maye ba pare dina ñu la jox di nga ndékki ba suur maye deret mbokk ci jaamu yàlla waaye itam feebar bi nga xamante ni moo lëmbe réew mi feebar bi nga xamante ni moo jaaxal jigéen ñi feebar bi nga xamante ni moo ëlëm jigéen ñi di cancer du sein médecin itam képp ko xamanteni jigen nga teew ci bobu la consultation ah dinañu la saytu xol ba xam ndax am nga cancer du sein ah mbokki jigen ñi yéen mom bes bi bes baangi nonu noonu gaaw leen gaaw muy le 31 octobre 2020 à partir de 9 h fele ci poste de santé bu ñàgg ak école élémentaire commune tawone Peulh ñàgg rawatina wa ñàgg bu len fa kenn jiit japp len bes baangi nonu noonu muy consultation médicale gratuite taw ci ba ngay amee tank fàggu moo gën faj aju wérgu yaram moom lañuy ñaan saa su ne kon nag jàpp leen bés baa ngi noonu muy le 31 octobre 2020 à partir de 9 heures fële ca poste de santé bu ñàgg ak école élémentaire ba consultation bi nag gratuite la képp kuy ñëw amul fay dara consultation bi gratuite la li ñu leen di ñaan rek mooy seen teewaay la ñuy sàkku ci askanu Tiwaawan Pël ñàgg waa dëkk maa ngi surtout jigéen ñi ngeen ñëw def seen consultation ndax kat faju fàggu fajoo ko gën